dalal ko egsi na Mouhamadou Lamine Badji collectif syndicat opérateur télécommunication moom la ñuy dalal tey jile ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm monsieur Badji. Euh, ñu ngi leen di sant di leen nuyu tamit di nuyu seen téléspectateur yëpp. Hmm. Euh, di la jaajëfal naata. jàpp naa ne bokk nga ci ñi gën a néew ñuy jaar sama sant comme ñu ci war a <laughs> jaaree baddi bi moo gën a si waaye baaji la baaji boobu mooy bi cosaan <laughs> ah, merci euh. jërëjëf <laughs> alors euh, dégg nañ leen démb euh, Chérif ñuy ñaxtu ci fan yi nga xam ne dañ doon coupé internet beeg njeexital yi mu am ci seen liggéey ñu bàyyi la nga tàmbali kon sëñ baaji sant na borom baax a baax xam ne teewaay bi fii ci de téléphone yi muy Sonatel ak Free ci Expresso daje ngeen boole seen doole benn point de presse boo xamante ni ñaawlu ngeen ko encore une fois coupé gi ni coupé internet ndax na a jàpp ni njeexital yi bari na ci wàllu kooku. waaw njeexital li foo ko tàkk romb na ko Chérif. te jàpp naa ne Sénégal dëkk yi suñuy dox di avancer ñun dafa mel ni dañuy dox di dellu gannaaw euh, pour ma misaal ko moom mooy dëkk àdduna bi yëpp ñu ngi jéem a xool naka la seeni doom wala seeni xale di jëfandikoo internet njir mën a def li mel ni intelligence artificielle ngir ñu mën a def yeneen xeetu xarala yoo xam ne tey dëkk yi ci la ñuy rawante ñun suñ toll suñ dëkk toll foo xam ne li muy li ministre bi li muy liggéey mooy bés bu mu xëyee coupé suñu xoolee impact yi nga xam ne am na bi ci njëkk mooy soo jëlee opérateur yi rek perte nañu lu ëpp 3 milliards 3 milliards de chiffre d'affaires hmm. dégg naa ministre bi nag nee na loolu bëriwul ndax soo xoolee Sonatel am na 1000 milliards. wax ko fii fi nga taxawloo ko. waaw loolu nag musiba musiba romb ko moo tax dama jàpp ne ministre bi fa mu nekk du place. ah déet am na lu ko jiitu nag mooy mbiram kaaraange la xam nga kaaraange ba benn benn bakkan moo gën a fort 3 milliards. waaw léegi benn bakkan moo gën a fort 3 milliards dafa mel ni kon xanaa internet ay rey bakkan loolu la ministre bi bëgg a wax. loolu daf na ay message de haine. li tax ñu koy. waaw léegi message de haine yi lu ko waral. xam nga Edwy Pel Edwy Plenel euh, seen naataango boobu dafay wax lu am sol dafay wax ne soo attaqué aux conséquences sans s'attaquer aux causes c'est ajouter du désordre au désordre hmm. lan moo waral ba manifestation yi di ab ba ay nit ñu leen ciy boobu suñ ko xoolee nañ ko nañ ko wax te te te ñame ko crise politique la rek hmm. mars bi mu fi am 2021 ay waay politique ñoo jote woon hmm. mu nekk crise politico-judiciaire bi ñu ñëwee mois de juin juillet 2023 loolu lay tamit bi mujj bi président de la république moo xëy ne randal naa élection yi coow am kon internet yoonam newu ci balaa muy couper internet kay na fexe ba politique bi ñu defate lu kenn di manifester. Mm. jàmm am ñëpp utiliser seen i internet kenn du ci ñàkk koomam. dëgg la kon wax ji du internet. te nag bu ñu xeeb loolu. Mm-hmm. xam nga li ci opérateur yi di ñàkk soo ko méngalee ak li ci société bi di ñàkk. li ci opérateur di ñàkk lu néew la. ministre ngeen ñàkk rek ngeen xayma ci ñett milliards. waaw mais suñu jëlee li population bi di ñàkk. Mhm. xayma dañ ko ci bés bu nekk suñu coupé internet mat na quatre milliards. chaque jour li sénégal yi di ñàkk. te war na koo romb sax waaye loolu moom mooy estimation minimale bi. soo jëlee diggante juin deux mille vingt mhm. ba tey def nag treize jours de coupure. treize jours. Mhm. ci ci loo xam ne matul dix mois. imaginez ñaata la ci perte jege na cinquante de pertes pour une économie aussi fragile que le Sénégal man moo tax dama am gàcce ci vraiment may may xalaat sax ne kii moom mooy sama ministre <laughs> ngeen baale ma ko noonu waaye loolu moom mooy réalité beneen bi aussi moom mooy conséquence yi nga xam ne dafa aju ci ni société bi di doxee tey est-ce que imaginer ngeen commerçant bi nga xam ne dafa am partenaire bu nekk étranger war a jokkoo ak moom te li ëpp tey ñu bëri amuñu. ay fil ay lignes fixes. oui mais Badji justement il faut préciser que c'est pas internet que coupé. donné mu mais ñaata nit boo nekkee sa kër am wifi. yaa ngi am nit ci Sénégal ñoom ñoo am. Uh-huh. internet seen i kër. seen i naataango journaliste am na ñoo xam ne dégg naa la ñu ne dañuy dañuy jóge seen bërëb. Uh-huh. dem squatter feneen ngir mën a liggéey. am na ay quartiers yoo xam ne nit ñi am nañu xaalis mais mënuñu am internet. loolu moom ñu am internet loolu nag dinañ ci ñëwaat ak yéen waa ah. Orange ak seen gars yi yéen ci war a góorgóorlu. ñoo ci war a góorgóorlu ñu ngi ciy góorgóorlu tey soo xoolee te loolu on est à pour wax ci soo xoolee au niveau waxuma Afrique rek yem ci Afrique Moyen-Orient en terme de couverture fibre optique Sonatel moo ci raw moo ci raw voilà doyut nag doyut te bés bu nekk ñu ngi ciy jéeg ñu ngi ci def ay jéego te ay milliards la ñu ciy investir waaye bu fekkente ne milliards yi ñu war a investir dañ koy perte muy 3 milliards di dem hmm. jàpp nga ne kon danañ gën a investir parce que fil bi du ñëw rek nekk fa xaalis koy andi hmm. Euh, li ñu bëgg a wax moom mooy bi ñu gisee loolu dañoo lëkkaloo ndax su ma waxee Sonatel rek mbir mi du Sonatel rek. Hmm. Free da ci am impact. Expresso am ci impact. ñu ne ole ku nekk di xàll yoonam di xeex nañ boole suñuy doole ngir xeexandoor ko benn yoon ndax jàngoro bi nag ñun ñëpp a ko bokk. Hmm. waaye sax mënoon nañ nekk dans un égoïsme ngeen baal ma ci français bi ma ciy yàq ne ñun opérateur suñu yoon newu ci wala boog suñ ciy perte yi tamit mun nañ koo muñ mais population bi nga xam ne ñun dañuy fay pour ñu servir. dafay jënd crédit ngir mën a am connectivité kooku nuñ ko nuñ koy def mhm. ki nga xam ne da ciy lor am na koo xam ne sax loram loram buñ ko xeebal moom mooy soxna si wala jëkkër ji mu ngi bitim réew te ci te internet bi lay jox kook moom kooku nu ñuy def ak moom état bi nga xam ne moom moo war a nekk garant ñoon ñi bu fekkente ne moom mooy ñëw di salfaañi loolu te mu nekk plusieurs violations parce que violation la des droits de l'homme violation la aussi des droits économiques violation la aussi de l'accès à l'information de la liberté d'expression kon wax ji nañ ko wax. Ah, li ministre bi nekkee du yoon. monsieur Badji ah. yéen ban léegi yéen euh, ban moyen ngeen am ngir euh, bañ loolu à part euh, seen sortie ngeen di def parce que. crise bu mujj bi laataa mooy am déjà ci veille bi sax artu ngeen ah génnewoon ngeen communiqué naan nguur gi ba mu coupé internet bi ca suba sa la ko def mais yéen est-ce que am ngeen mën ngeen bañ mën ngeen bañ obtempérer suñ leen ko santé. xam nga li gën a bon moom mooy ne mënuma ci daal. ñun lu ñu gën moom li ñu gën moom mooy état bi sax suñuy reen yi di ñu diri danañu wér liñ mën moom mooy li ñuy def nii ñu ngi dénoncé démb decrété dañu un mot d'ordre de débrayage te nag du fi yem fii rek bi mu ngi nekk ci loolu ñun danañ déployer bi ñu njëkkoon suñu suñu action bu njëkk bi soo xool communiqué rek la woon al bi ñu jàllee dañoo def conférence de presse bi ñu jàllee waatee ñu décrété un mot d'ordre noonu lañ koy doxee maintenant nag du ñu weer suñuy pexe waaye li leer te waxoon nañ ko démb suñu conférence de presse mooy état bi su dellu gannaaw ci li ñun duñ dellu gannaaw. da ci kanam mbaa débrayage bi du am njeexital ci ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi. ah déedéet ñun mënuñoo wax ne dañuy faj jàngoro di ko di ko yokk. Hmm. bi ñuy def démb débrayage kenn gisul impact ci réseau ndax loolu ce serait incohérent de notre part. Ah, mais xeetu ba xeetu xeex bu ban impact lay am. Ah, ban impact lay am. Ah, xam nga on est dans un pays anormal xam nga am na dëkk yoo xam ne travailleur bi su tàkkee brassard rouge rek. Hmm. doy na alerte pour autorité bi wax. pour autorité bi xoolaat position et su ñuy wax ci affaire internet bi états uni seen communiqué lañ def département d'État loolu gàcce la ci ñun Sénégal mm. un État souverain mm. peut-être du loolu moom moo tax mu jël décision bi yàllaa xam mais un État souverain ñu gis ne américains yi dañoo wax tey rek suba nga delluwaat euh, réseau bi ndax loolu la ndax du loolu xamuñu non mais waaye ñun ñu mën a ñaxtu yéen ngeen di laaj ndax ñun suñu ñaxtu bi mën naa am njëriñ mais lire nga le communiqué la veille dañ wax nañ sax ci ay plage horaire en fonction de l'évolution de la situation. non non wax wax mu bees bi. bi mujj bi laay bi njëkk bi bi ñuy bi ñuy bi ñuy coupé lundi euh, su ma juum su ma juumul 5 février li dàkkal coupure bi coïncidence la ou pas c'est un communiqué du département d'État américain. mooy bi assemblée di. voilà boobu c'était une coupure intégrale. Hmm. voilà léegi naka la ñun parce que li américains yi wax on l'attendait de nos autorités étatiques. ñu xalaat ni coupure internet bi ñi ci victime yi du ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñoom ñooy diffuser ay messages et cetera mais c'est la population c'est l'économie qui en pâtit. Mm. Euh, monsieur ji seen taxawaay bi euh, yéen dong la wala yéen ak employeurs yi yéen a yéen a ko bokk et puis beneen bi comment rattraper le coup ndax la dernière fois gis nañ ni euh, orange lu ci mel ni da doon delloo delloowaat données mobiles yi yenn ci utilisateurs yi wala sax ñu ñu bëri pour peut-être rattraper li nga xamante ni kii nañ ko raté nañ ko wala ñàkk nañ ko. waaw xam nga ñun ay syndicat de travailleurs lañu jiite. Hmm. su ñuy jël ay décision duñ laaj lan mooy lan mooy wow lan mooy euh, position employeur bi te très souvent sax dañ fiy ñëw di xuloo ak employeur. Hmm. voilà léegi ñoom. ci biir nag ñoom am nañu seen i syndicat. Hmm. je pense que CNES génnee na benn communiqué. Euh, CNP gisuma communiqué voilà léegi ñoom am nañu seen i syndicat yu leen di waxal mais ñun lu ñu xam moom mooy ñun travailleurs yi lii mooy suñu position travailleur secteur bi yëpp nag. léegi ndax euh, mesures yi nga xam ne moom la ñuy jël loolu du lu bees opérateurs yi saa yu nekk saa yu coupure amee. danañu yónnee message ngir massawu seen i clients. danañu def ay mesures compensatoires yëpp dañ koy def. Mm. mais loolu ñoom la. Mm. cest à ku nekk dafay yem ci périmètre am décision yi suñ koy jël sax man duñ ma laaj. Mm. xaw ma li ci xew. voilà suñ ko deful yi tamit ñu gis ne war nañ koo def su boobaa mën nañoo tàkk suñuy rajo nag wax. <laughs> yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax léegi ci perte bi estimé ko ay milliards. ñu bëri dans beaucoup de dañuy boole. Euh, ministre de l'économie ak euh, numérique. Euh, est-ce que yéen ci seen wàllu xeex yéen a ngi xeex pour que au Sénégal di def ay plaidoyer pour que gouvernement bi bu ñuy organiser ti bu ñuy defati remaniment wala ñuy teg benn gouvernement ñu indi rattaché disons économie ak numérique est-ce que yéen kii def benn plaidoyer. ñu ngi ciy dem ay jéego yu bëree bëri bi ci njëkk moom mooy. mus nañoo organiser symposium boo xam ne dañoo invité woon le ministère de tutelle ne ko ñëwoon ñu xool secteur bi nu muy doxee l' ambition ci secteur bi au niveau du Sénégal l' ambition est réduite à néant à néant te ngeen baal ma ma def ci benn rappel historique gis ngeen dëkk yi lu ñuy rawante ñaari yëf kese la nouvelle technologie bu ñëw nga jiitu ci ñëpp sunu maam yi bi leen tubaab yi di coloniser du ñàkk fit de mais dañoo amoon mécanisation amoon lu ñuy wax euh, la machine à vapeur amoon moyen de production yoo xam ne ñoom amuñu ko ñu ñëw ak seen jàmbaar ñu dumale tey àdduna bi xeex bii am Ukraine ci numérique lay xeexe xeex bii am Palestine ak yooyu numérique mooy xeex léegi. Hmm. tout soo demee tey France am na benn lu ñu daan wax euh, euh, mooy génie ak transmission léegi c'est carrément une section numérique des armes ñun suñu dëkk tey tollagul foofu ñu ne état bi balaa ngay nekk ci yu ñàkk fayda ñool ñu wax yooyu on a rencontré des autorités du ministère. de l'économie wax leen ci question mais aujourd'hui l'économie est devenue tellement euh, le numérique est devenu tellement important dans le monde que sooy xool tendance bi moom mooy ñu boole ko ak euh, le ministère de l'économie mm. c'est le cas en France mm. soo demee lu mel ni Allemagne dañ koo boole ak transport parce que mm. nekkatul comme ni ñu koy waxee communication wu crédit nit ki wuyu mu rapproché romb na foofu moom moo tax su suñuy wax lu ñu metti la ñuy am cest à moom mooy dañoo nekk ci dëkk boo xam ne yow tu as l'impression que yaa ngi toog lu mel ni so ma jël par exemple lu mel ni secteur télécommunication ñaata la si chiffre d'affaires mm-hmm. avant ñuy wax pétrole télécommunication la woon mm-hmm. te on n'est pas en fait ñu xool luñ lu ñu exploité ci potentiel yi ñu waroon am ci télécommunication mootul 10 pour cent mootul 10 pour cent te retard bi ñu fi am beneen dëkk moo ñëw coloniser ñu wala mu ñëw paralyser suñu économie ci benn fraction de seconde parce qu'on n'a les capacités en termes de cyberdéfense on n'a pas les capacités en termes d'intelligence artificielle loolu la ñu waroon a fooyaloo xale yi <laughs> mais quand quand les autorités parlent réseaux sociaux la ñu xam ci ci ci numérique ak euh, manifestation ñaar yooyu rek la ñu xam ci numérique mais Badji justement naka lañ mën a concilier les principes quand parce que dafa am loo xamante ni sécurité la maanaam mbiram sécurité dafa am lu am solo mais li nga wax aussi ay liberté mooy expression boo xam mën na jaar justement ci xarala yu bees yi ba nga xamante ne benn du ci gaañ sa morom coupé du am wante tamit du jaar ci réseaux sociaux yi ngir mën a menacer sécurité réew mi bon est-ce que xam nga ne le fait sax ñu restreindre réseaux sociaux yi ça ça présente un problème sécuritaire est xam nga loolu hmm. ça présente un problème sécuritaire. Comment? la surveillance des frontières comment elle se fait le surveillance bi ñuy def ci bateau yi comment ça se fait da jàpp ne loolu lépp connectivité amul te dispositif yi bëri télésurveillance bi ça se fait par l' euh, euh, mobile. en tout soo bëggee am benn efficacité. est ce que doo may dérogation ci loo xam ne bëgguñu cee xuus parce que c' est du domaine sécuritaire. démb bi ñu koy wax dañoo wax ne député yi. de benn député moo fa teewoon ñu ne. demander au gouvernement au gouvernement mu wax leen la restriction de l'internet ban impact la am ci sécurité. Hmm. mais loolu sore na. manifestation yu wees woon bañ gis ay dit ñu rey leen ba sax police génnee ay image ni numéro 9 baa ngi nii mu siw fi lépp image yooyu lan moo ko jël du téléphone portable hmm. avec une connexion mobile loolu du sécurité au moins ça permet d'identifier un criminel hmm. donc le fait que ñu couper mais attends et beneen bi moom mooy démb maa ngi gis kenn ku ko wax parce que bëgguñu ko woon njëkk wax suñu bàyyee lii continuer c'est une ça peut même être une à la démocratie mun nañoo xëy nit ñi voté balaa 18 heures ñu coupé internet yéen ñii sax di ngeen am problème joxe ay chiffres ça se fait quelque part ah voilà donc loolu est-ce que nga jàpp ni loolu liy raam affaire dictature la mooy raam. parce xam nga ñun on est pas ñun on est pas des la démocratie. sooy xool ñun on est pas des politiques on reste sur nos principes de défense des intérêts boobu la. loolu vous en faites la déduction. Hmm. mais ñun du ñu àgg ba foofu. sooy xool dafa atteindre suñu outil de travail nekk une menace pour aussi nos clients parce que xam nga un travail ne n'existe pas sans le client n'existe pas sans les sans la société. sans les Sénégal sénégalais yi tey lu ñu am ñun suñu amee oto di ko dawal sénégalais su ma xëyee ñu may fay sénégalais donc bu fekkente ne douleur bi dafa ñëw wàcc ci ñun ñëpp amaana sénégalais lambda prix individuel la mënu koo xeex ñun ñu war koo xeex. léegi euh, bi ngeen commencé yëngu-yëngal léegi ndax am ngeen euh, maanaam euh, ku wax ak yéen. Euh, pour que mbir mi ñu jéem ko saafara. la tutelle la tutelle de tant que yéen yéen a ngi euh, ŋàññi ministre bi di ko yakk lu mel ni xay ni euh, na fi jóge te kooku pourtant bu ngeen di wax moom ngeen war a waxal da daa mel ni. Malick li ma leen njëkk wax moom mooy. Mhm. maa ngi dégg seen question yi mais ne nous sous-estimez pas en tout cas ñun yàgg duñu ay syndicat. <laughs> non non je loin de là. non non non est-ce que yow. non est que am dama la mhm. nañ suñu plan d'action. Mhm. ñu ngi raam ndànk ndànk di avancer. li ñuy wax état bi moom mooy ku dee ba noppi kenn mënu koo ray kenn mënatu koo rey. ça veut dire wolof la. ndax état bi ngi leen di rey moom mooy. mooy lan waay li ñuy xeex nii. Hmm. ba keroog ñiy am gain cause. ba keroog ñuy am gain de cause en tout cas doomu aadama buy dukkat ci kaw suuf moom du moom moo ñuy dellu gannaaw li gën moom mooy autorité yu mel nii du ñun sax ñoo leen war a woo ndax on a fait on fera une saisine au ministre du travail. pour le moment loolu la ñuy def te xam nañ lu tax baax ñu koy def le ministre de tutelle à vrai dire dañ koy tooñ mais je pense qu'il exécute plutôt des choses des des des des parce que décision yoo xam ne question de souveraineté. alors maintenant ñu koy jox décision yooyu. mooy président fii kii fii dogal c'est le président. de c'est le président c'est peut-être quelqu'un d'autre ñun liñ ko mën a wax moom te jàpp naa ne président aussi danañu dégg moom mooy lii c'est pas la solution et les travailleurs se battent voilà. mais loolu laa ci mën a wax. mais pour euh, xam nga li ngeen di wax nii nee nga ni askan wi ngeen koy xeexal mais yéen aussi de l' côté askan wi souvent. Mhm. bari na ay grief yoo xam ne mi ngi koy teg ci yéen ci seen i qualité de service te yéen syndicalistes yi duñ leen ci dégg ak séeraay bi comme ni ko Malick waxee. cher na trop. ah leen wax ne doo leen ci dégg. mais dëgg la kay ah, ah, ah. man loolu laa la bëggoon laa sa <laughs> baaji. waaw tey moom yéen a ngi que seen intérêt lan laal te yéen li ngeen am ci bénéfice moom. déjà ça c'est indécent. non attends cest à sooy xool syndicat jiite. xeex nañ fi génn nañu xeex fi contre Ablaye Wade ne bul jaay 9 pour cent France Télécom. loolu ñun ban intere lañ ci am parce que dañu ko wax ne lii alalu Sénégal la war fee génn travailleur free yi porté nañu ay combat yoo xam ne pour ñu xool ja démb dégg ngeen ko session boo xam ne waroon nañ koo séddee ñeneen naka la ci Sénégal yi war a am. libération ñëwaat nañ doon ko soo xoolee Expresso noonu kon bu ñu wax ne ñun suñu yoon newut lu fileeg suñuy intérêt menacé wuñu ko beneen bi moom mooy ci séeraay beeg yooyu est-ce que xam ngeen ne soo waree Sénégal Afrique ba Afrique jeex. ñun ñoo gën a moins cher Sénégal laa wax dañoo gën a moins cher ay tarifs en matière de télécommunication je défie quiconque loolu mooy réalité voilà maintenant nag on comprend le client qui dit man dama bëgg mu gën di yomb comme aussi on comprend le travailleur qui dit man dama bëgg sama salaire gën a yokk. comme aussi on comprend non non non laissez-moi terminer comme aussi on peut comprendre. le patron qui cherche à avoir plus de bénéfices maintenant bu ci nekk bu ci nekk dañ ko war a dégg pare nag ñu utal ko solution tout le temps sooy xool man bi may nekk Sonatel ba léegi te maa ngi koy bëgg a yàgg at bu nekk tarif yi wàññee at bu nekk Free noona Expresso noon donc wax ne en tout cas luy yokk Sénégal luy yokk Sénégal téléphone moom bokk internet bokk ci wàññeeku la bokk bu fekkee ni internet ak euh, yooyu di wàññeekoo ceeb mu ngi wàññeekoo noonu. jàpp naa ne dund bi dana ne kon loolu tamit foofu ngeen nangul ñu ko maintenant après mu des li ñuy wax qualité de service. loolu nag problème bu rëy moo ci am bi ci njëkk moom mooy qualité de service euh, c'est comme tey euh, tele bi il peut y toujours des quoi mais problème bi ñu gën a am Sénégal moom mooy la régulation. la régulation c'est-à-dire qualité de service soo koy comparer au standards internationaux on on est bien. Mhm. on est quand même bien. ah mais nag qualité de service boobu nag mooy problème. parce que des fois am internet sa kër mu coupé ngay xaar ñu ñëw régler ko mu jël. énormément ah d'accord wala nga nekk ci ay zone yoo xamee ni hmm. le réseau ne passe yooyu yëpp ay problème la yoo xamee ni da koy teg askan wi. oui loolu laa nekk di la wax. Hmm. qualité de service soo ko jëlee globalement en Af en Afrique et dans le monde on est au en tout cas au standard international. maintenant mu des benn doon mooy li ngay wax nii moom mooy est-ce qu'il faut améliorer le service oui voilà il faut l'améliorer te loolu c'est na amélioration continue du luy jeex ci benn fan mais nag bu ñu wax ne on est les derniers de la classe on l'est ah au niveau au niveau africain laay wax de waxuma euh, fii comparer les opérateurs entre ñoom ndax tey ñëw ma fi au nom d'un seul alors euh, sénégalais yi ñu ñu xereñ lañu surtout ndaw ñu gis naa ni bu situation bi amee ñu ngi jéem a wut ay solution pour am connexion ndax solution yooyu lu durable la parce que gis nañu ay ñu ne euh, VPN. léegi ñu ngi wax ni sax wala wala ñu ne léegi bu fekkee ni da nga dem si sa données mobile bu dee orange nga da ngay def expresso wala tigo di nga am connexion et vice versa <laughs> est-ce que loolu lu lu lu lu solution durable la wala solution yu baax. bon loolu ça démontre que jeunesse bi ñu am. Ah, suñ ko exploité woon ni mu waroon Sénégal dépa dépassé na fi loolu kese lay signifié maintenant c'est anormal que ñu nekk à ces à ce niveau là on trouve des astuces pour avoir de la connectivité tout loolu mm. gis naa ci euh, way politique sa conférence image bi ma gis sànq koy politique yaa ngi buruxlu de dugg di <laughs> ah. woy politique bon ah. ñun xam nga. gis naa fa ay député gis fa ay ñoom Dambo. xam nga xam nga xam nga permanence bi ñu defee conférence de presse bi. waaw ay ministre de la république ñëw nañ fa. ay circonstances a leen fa ànd. xeex nañu xeex ñu gis ne bokk nañ ci ñu ñëw. Hmm. ay activistes ñëw nañ fa ay syndicalistes ñëw nañ fa ñun li ñu am moom mooy sunu intérêt ak sunu sunu combat kuñ ci fekk si baax. Hmm. voilà donc loolu <laughs> jàpp naa ne leer na. voilà hmm. bugguma tudd ay nit mais ay de la république ñëw nañ fa. fan noonu kañ. fi ñu defee conférence bii nii non pas démb. mais yooyu yeneen conférence lañu leen intéressé woon ñu ñëw. ah doon am ay action ci bagage yi. moo tax ah, xaw ma ci dara. bii ah, <laughs> <laughs> bii ñeneen lañ gis ñun dàquñu kenn ñun li ñu xam moom mooy suñu xeex en tout cas duñu wàcc suñu ligne kenn duñu mës a dégg ñu ne euh, politique bi nii nii ak naa kenn mësuñu cee dégg mm. waaye nag li ñu soxal danañ ko xeex buñ mm. ci fekk si baax mm. merci beaucoup jërëjëf Mouhamadou Lamine Badji euh, collectif syndicat opérateur télécommunication ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal bonne journée ñu ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf jërëjëf merci ñu jàll léegi léegi ci jàngat bi